bañ koy doog a tàmbali nag jafewoon na trop parce que xëy na c'est une première mosul am muy foire privée ñu bari biñ ko waxee daf leen xaw a jaaxal mu jafewoon lool nag ah ñi gëm ko rek di ci dox guddi ak bëccëg suba ak ngoon di si waxtaan ak ñi suñu war a waxtaanal ñuy xalaat buñ xalaatee seet li ci gën ñu tànn ko denc li ci des ñu bàyyi noonu vraiment noonu lañ continuer continuer ko continuer ko ba mbir mi commencé di jël form ñi dem ba ci kanam nak ñu xamne li lu mëna a la ñëpp tamit xamne lu mëna a la vraiment ñi foncer rek man ko yalla dogal ni quoi. di kontaan rek ci ñeu fi accompagner suma xarit suma frère xamni Diop bi nga xamne ne moom lañ tuddee bi ah, di am côté vraiment si dalal bi ñu dalal ah, si cadeau bi ñu jox aussi donc occasion témoigner si baaxam témoigner aussi si rôle bu mu jouer si élevage bu Sénégal. Ouais, ça, ça, ça, ça fait toujours plaisir.

muy Lamine Diop ferme Maktoum boo xam ne wayjur la ci ñun te lépp la ci ñun euh, ñu ñëw fii teew suñu teewaay boobu waaye teewal ko moom itam ndax koo xamul noo koy def nam la def a tax te moom fu wayjur di féetee doom rek moom féete nañ ko te nit amul lu dul bësam comme li bësam la moom mooy pare principal yi baax na ñu ñëw gungee ko ànd ceeg moom euh, jàppale ko ci li ñu mën a si ñëw. filaa bi moom rëy na lool bon parce que. lu fi mësta am ci élevage da cee am muy oto yi nga xam ni moom lañu ñu tegal xar yi di lu rëy ñi ko organisé itam di ay homme de conviction yoo nga xam ni muy Modou Diagne ak Modou Dramé euh, yaakaar naa ne bu ñu defee lu mel nii ci élevage du bett kenn daal ndax ñoom xar rek la ñuy dund xam-xam yi bon dañ fi ñëw pour wane liggéey bi rek parce que la plupart de nos sujets ñun ñoo leen juddule mooy ñaari maal liñ fiy gis ñun ñoo leen juddule c'est-à-dire ñoo leen liggéey du loo xamante ne dañ ko wuti feneen. ma ne foire yi vraiment dama fi ñëw ak mbégte parce que des occasions yoo xam ne dañuy gis pratiquement sa mbokku éleveurs yëpp dañuy gis tous les passionnés de l'élevage bon surtout su amee xar yoo xam ne aussi sénégalais yi da nga ko xam ne xar yi da nga ko bokk am xar yi fi ñu toll. ñepp leen di bëgg da nga am ay xar chambre yo xamne Sénégal ñepp leen di xam donc aussi gaay dañuy xaar occasion fois nga ñëw surtout éleveur yi ak passionné yi ak fans yi pour nga ñëw indi seen xar yi nga wone nga wane produit production bi quoi. wa xam nga Fila mom rendez-vous la bu ñepp doon xaar euh, foire gëj na am donc occasion la foire bu melni ñu mëna euh, présenter wu génne suñu xar euh, wone ko ci ci ci foire bi quoi. wa li ci ëpp nag exposition très jeune lañu andi andi wuñu sax benn femelle bu mag. Euh, ay espoir lañu andi ak ay agnelle wane tuuti production wu diaspora lu mu jot def ci bergerie bi ak quelques euh, produits yo xamante ne ñoo nekk ci bergerie bi aussi. donc ñun les éleveurs là dañuy indi suñu xar yi pratiquement wan ko clientèle yi pour aussi mun a am pratique dafa prospection commerciale la. xam nga am na am nañ suñ ñun éleveurs yi xamante nañ suñu biir mais am na ñeneen ñoo xam ne dañuy bëgg a découvrir la bi ci foire yi dañuy ñëw bëgg a jënd donc c'est l'occasion ñi ñi di indi maal yi di indi seen doom yi pour présenter ko aussi gré pour rencontre ay ay potentiel acheteurs ak yooyu quoi. waaw élevage moom fu mu toll nii xam naa ne que moom kanam rek la jëm waaw c'est-à-dire euh, dafay loo xamante ne développement bu muy jël avancé bu mu jël actuellement nii je pense que ñun ñii sax maîtriser wuñ ko waaw xamuñu ko parce que chaque jour nga gis loo xamante ne day nega ay sujet d'exception yoo xamante ne xalaatoo woon ne xar dina mos a yegg foofu euh, donc euh, liggéey la boo xamante ne xam nañu fu mu tàmbalee mais xamuñu fu muy jeexee

président Macky Sall ku ne xam na ne ku fonk élevage la te itam même ci ay discours am day wax pour ñu privilégier élevage vraiment ñu ngi ko ci félicité bu baax di ko ci di ko ci ñaanal vraiment li mu ci yéene itam yàlla def ko yàlla def ko waaw ah, Aminata Mbengue Ndiaye def na ci liggéey bu rëy euh, a ah, Samba Diobène Ka ñëw def ci liggéey bu rëy kii fi ne nag gisagul lu mu def waaye xëy na mi ngi def vraiment à part euh, ñi nga xam ne ñooy parrain à part ñooñu mën naa wax ne fonds propre parce que dañoo def benn dañoo dañoo dañoo financier pour a ay box pour mën ko jaay éleveurs yi éleveurs yi mën koo mën a jënd par rapport ak euh, parrain yi li ñuy jàppale ak suñuy ak suñuy ak suñuy ak suñuy fonds propre loolu lañ dajale ba mën cee taxawal lu mel quoi na yow xol nga parce que bo xol mënatu di buy jaari pass wala dara comme sponsor amuñu ko xeyna nak ñom ñoom ñu woon dina melni peut être loolu ñun aussi gëm nañ suñu bop xam nañ ne mën nañ def sax lu raw lii mais bu li passé yaakar na né benen yoon buñ koy def ñom ñoy daw ñëw mais du soxlu ñun ñi bind kenn élevage bi man limay ñaax si yi rek euh, moy lepp lu ñuy def ñom ñu accompagner ñu soit la nature de ce qu'on fait si élevage parce que lepp luñ ci def muy foire di leneen euh, ça participe euh, euh, à à l'émancipation de l'élevage ah donc ñun loolu dañ ci ñaax autorité yi ñu accompagner ñu à tout point de vue surtout tay jii laadum bi tay jii comme ni ma wax sànq laadum bi dafa laaj ñu homologué ko tollu na fi nga xam ne il faut que ñu exporter ko te pour ñu exporter ko il faut ñu homologué ko donc loolu aussi dañuy si ñaax état bu baax pour mu jàppale ñu si loolu. Ah, macha allah état bi chaque jour maa ngi jooy naan milliards yi ñuy jéggaane ci jamonoy tabaski di ko jëndee ay xar wala jamonoy màggal wala yeneen fête yu mag yi nga xam ne comme gàmmu ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne dañuy soxla jur wala soxla ndawalu xar état bi mën na jaar fi appuyé ñu éleveur laadu yi bu ñu doolee doolee rek xam naa bu ñu joxee tuuti autosuffisance en mouton dina am ndax moo tey laadum rek ngay gis mu am 4 mois avant 8 mois mu pesé plus de 50 kilos

premièrement chômage yu ndaw yi dina ko liggéey dina dinañu tàqaleeg mbënd bi dinañu tàqaleeg tukki bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne a apporter suñu réew toog fii ko élevage li muy laal bari dana laal mbay mi ndax xar yi ngooñ la lekk dugub la ñuy lekk ak leneen ak leneen dana laal yeneen aspect yoo xam ne macha allah macha allah c'est toute une chaîne donc xam naa ni euh, lu ñu ci liggéey rek doyul macha allah. avancement élevage yëggagul fa mu jëm day door ndax gis nga xar yi loo daan gis ci làmb ji di nga ko gis ci xar yi. comme course bi yakuna na mom yi euh, dina nu dem inshallah L'organisation L'organisation bien bon parce que on comprend parce que nous c'est la première fois mais dans l'ensemble c'est vraiment c'est correct vraiment nerveux. ça a bien débuté bon am problème ndaw mais ça amul problème ñu ngi koy gérer mais ça se passe bien quoi. Wa filaa bi bon dafay loo xamante ne peut être nag première première édition là. du ñàkk mu am manquement mais c'est normal parce que tamit lépp loo gis début bi dina am manquement manquement yooyu nag dañ ciy tirer leçon pour la prochaine fois booy def une édition. nga nga rectifier quoi mais c'est tout à fait normal nag mais vraiment euh, le rafet la initiative vous rafet la parce que ça sort euh, ça sort un peu de de l'ordinaire quoi c'est-à-dire tout le temps association ñoo organiser légui buñu démé demee ba am agence bi organiser sante yalla quoi. alors ah, loolu c'est une première c'est vraiment ñu koy à lu bu baax parce que non la wara a ça sax ku bàyyi bàyyi comme concours dafa metti dafa am ay contraintes da ngay bàyyi sa xar du tepp da koy préparer ay mois laaj na bo bo ci gagner dara ñu war am lo xamante mu significatif lo xamantene moy wone ne yow sa effort bi nga doon def li mo koy fay donc li c'est à souligner foire yep ni la wara a demee ci yone non organisation vraiment dañuy féliciter Diagne Modou ak euh, Dramé ak parrain bi Lamine Diop wax dëgg yalla bon foire yep ay adam wax dëgg yàlla nii lay mel sincèrement parce que gars yi Sénégal quand même am nañu expérience foire quoi donc machallah ça va. loolu mom dëgg la parce que gis na nek grand mal 4-4 ngay gagner loolu musu fi am grande femelle tamit nañ euh, la jox voiture berlingo donc euh, c'est c'est une première et ça motive les gens à travailler tamit parce que les tax nga nga nangoo liggéey nangoo sonn ci xarit non pour euh, concours wax c'est une innovation parce que quand même il faudrait encore féliciter les organisateurs ñoom parce que quand même foire musul am ñu ay c'est la première fois vraiment c'est inédit bon man it indi sama ñaari mal mais vraiment dama indi pour exposition ñoo pour ay concours ak quoi voilà pour innover moo tax ñu indi ay 4 4 parce que tamit élevage dafa metti te comme vraiment élevage dafa metti war nañ def loo xam ne nii dina yóbbu niveau bi feneen ñi si dugg leen dinañ ci dugg ñi si nekk tamit vraiment dinañ gën a sawar parce que gagné ñu jox la benn affaire boo xam ne say mbokk buñ ko gisee kontaan vraiment loolu dafa am solo donc moo dàq foofu yaakaar naa gagné rek ñu jox la benn diplôme xëy na loolu yow di nga ci bëgg mais ñi la wër duñ xam exactement li nga gagné dara ji nan la toll waaw waaw la fête des éleveurs macha allah te lii itam namoon nañ ko ndax yàlla dogal na contexte bi ñu génn ci ñaari at yi wala bi ñuy bëgg a génn ci ñaari at yi weesu xawoon naa xat ak euh, feebar mbas mi fi nekkoon ñu ñaan nag yàlla jëlee ko fi ba mu set wecc wecc wecc donc daje yu mel ni gëj nañ ko am te luy suuxat élevage bi la te lu koy yokk la parce que day motiver ñi ci nekkul woon ñu nekk ci ñi ci nekk tamit ku nekk xam fi sa liggéey toll nga mën a gën a góorgóorlu pour ñaax sa mbokk te yokk euh, gis nañ fi ñëpp. tey kenn manqué wu loolu rek c'est une réussite totale donc ngi jaajëfal euh, organisateurs yi di jaajëfal tous les visiteurs di jaajëfal képp ku éleveur parce que yombul xar ku ko xam rek xam ne yombul te xam naa ne liggéey la fi mu toll nii euh, boo xam ne moo pour man poste bi suñu président de la république di occupé ak ministre yi di ko occupé pour man ñun ñu les éleveurs tam loolu la ñu parce que ku nekk réew mi Sénégal li nga mën a béyee sa waar pour yokk ko rek loolu nga ci la ñu sedd ñoo ngi

vraiment félicitations à tous les éleveurs. Encore une fois, de réitérer ce que demande aux éleveurs qui ont les moyens hein, de quitter les maisons et d'aller investir dans les fermes. Dernier moi, je du surtout éleveurs. Parce que euh, mbir qu'on ko taxawalé commencé vous ci nek dang ko def sous suba ak wo di conseil conseil vraiment vraiment ñu egsi fii te dañuy ñaan yàlla incha allah di continuer waaw di gërëm mbokki éleveurs yëpp di leen jaajëfal di leen wax ni amuñ seen fay waaw di di jaajëfal soppe yëpp euh, bergerie alhamdulilah bu Siré ñu jaajëfal ñëpp amul seen fay ba ci ki toog këram yéene la benn allahumma rek kookoo gën nëpp mérite ñëpp sax ah, di di di di ñaanal réew mi daal jàmm yàlla na ko fi yàlla def ndax gaaw jàmm yéex jàmm jàmm ci la lépp xat yàlla nañu ko yàlla bokk defal yàlla bokk ñoo sàmm aar ñu mottali suñuy mbébét ak suñuy yéen lépp ànd ak jàmm ak sutura bu baax a baax ñoo ngi leen di jaajëfal. waaw di la remercier si présence bi waaw di ñaan yàlla foire bi ñu ñu tàmbale ko si jàmm eggale ko si jàmm xar yëpp ñibbi si jàmm donc feet euh, feet bu neex la dañ ñëpp ñëw visiter si xool stand yi xar yaa ngi fi donc euh, ñi gën a bergerie yu gën mag ci Sénégal ñi ngi fi dañoo visité vraiment foire foire bi dina neex incha allah. waaw dernier mot di ñu remercier surtout yéen vous êtes des pratiquement yéen vous êtes des relais sincèrement à travers vous surtout la diaspora vraiment am na ci jubari ñu ngi ci xar yi donc yéen tax pratiquement laarum di dem foofu partout quoi di leen remercier tamit di remercier pratiquement sama mbokk éleveurs yi ma bokk ak bi quoi. ah xanaa di di la sant rek di di ñaan yàlla nag Ovision jëm kanam rek yàlla na yàlla yëkkati ba sa njot incha allah sama dernier mot mooy na éleveur yëpp juboo nekk benn ndax ku ci yéene ñëpp bu ñu yéeneentee jàmm élevage bi day jëm kanam bu ñu yéeneentewul jàmm ku ci yéene nit ñi jàmm sa élevage dina jëm kanam waaye ku yéenewul nit ñi jàmm boo moytuwul ñëpp dinañ dem ba yërëm la